yàlla dana ko tabaxal kër ca àjjana ba te itam sopp nañ ko ci julli ñeenti rakkaa rakkaa bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng xulu wallaahu ahad lu ci nekk ñaar fukki yoon ak juróom maanaam vingt-cinq fois des na ko musal ci sawara te des na ko jéggal moo ko jege ñaaleem te buy jéggi siraat day mel ni ak melax noonu la dikkee ci téere bi Serigne bu Mbacké bi ñuy wax Xurratu Ayni ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen di daje beneen at incha allah rabbi yal nañ ko fekkee te tal ko te man ko jaa ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi